Boucar maa ngi lay fay salaamaaleykum mbooloo mi fi nekk yëpp ku ci nekk euh, maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di nuyu képp ku fi teew di leen jéglu ci tardement bi fi am ak yëpp bon di wax ne kontaan naa ci ndaje bi tey di sant yàlla bu baax nag ci xéwal yi muy wàcce instant yi nii di sant bu baax di sant aussi suma ñaari waajur bu baax di ndokkeel Sénégal yëpp di leen ziar di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam waaw tey kontaan bu baax ci bésu tey bi waaw bu loolu weesoo nag di sant staff bi fi nekk nii Daouda mu ngi nii toog Elas mu ngi nii toog David mu ngi nii toog boo ko tuddee tudd Eric Favre rek lépp mot na quoi may sant aussi président écrit bi mu ngi nii toog Papa Thioune mu ngi nii toog. suma entraîneur Sénégal fii mu ngi nii toog muy Mohamed ma koy nuyu di nuyu madame Kébé ak képp kuy entraîné ci saal bi fii di nuyu aussi Super Titi aussi waaw bu loolu weesoo di nuyu suma champion yi nekk fii muy Ndiaye Tine carrière Ablaye Ndiaye Robert waaw di nuyu aussi mbër yi Bawol yëpp daal di wax ne bégg naa ci ñoom ku ci am combat na nga gagné ku amul combat na la ko yàlla maye mooy suma rak yi. tey boo limee ci ñoom rek problème day am quoi wax dëgg yàlla jàmm ak salaam ak ndam rek laa leen yéenee di nuyu aussi président Elimane waaw moom boo ko tuddee maanaam fan si club yëpp tudd nga leen quoi kon président ñu ngi lay nuyu di jël noyoo bi di ko teg sa loxo nga tegal ma ko ci loxo ñëpp quoi waaw bu loolu weesoo nag di sant ñëpp daal di rafetlu jeetaay bi. Masek aussi maa ngi lay nuyu Socé Mané waaw suma coach su entraîneur Mbaye Ndewane Ablaye Gueye Ibra Diagne nga xam ne bu xale yi entraîné fee ñoo leen di taxawu ñoom Socé Mané ak suma frère yëpp ak supporters yëpp képp kuy bëggee Tapha Tine maa ngi lay nuyu képp ku naan yàlla na Tapha daan maa ngi lay nuyu ñi may ñaanal te xaw ma leen ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu parce ñaan dafa yaatu dafa am ñoo mën a toogal am ñoo mënta toogal kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Iba Kane maa ngi lay noyu yow bu ma la noyoo jël noyo bi teg ko sa loxo nga noyul ma journaliste fii nekk yaa ko Boucar daanaka mot na ko quoi yow suñu doyen nga comme ni nga ko waxee suñu carrière fii la la fekk waaw diiraa ñuy dawal vélo ba yàlla suturaal ñu ñu xaw a am tuuti oto lépp sa kanam la quoi comme ni nga ko waxee lépp léegi nii noonu la demee kon ñu ngi lay sant bu baax di noyu aussi monde lam déglu bon après ñu dem ci question yi voilà loolu la quoi oui. la question mais comment organiser ça ma ne comment organiser ça. la la question nag tey jii pour pour les lèvres mooy tey pourquoi le choix ay Tapha Tine def point de presse boo faa ko mu def open presse comme ni ko tey say supporters bëggee tey gis la nga ñëw sumé ko entraîné def sa bopp vraiment def ko physique saakoonteeg ñoom lan moo sabab tey Tapha Tine ñëwul def li nga xamante mari maa ngi lay nuyu Siga Dione Marème maa ngi leen di nuy ñii sumay jigéen lañ Caanaar maa ngi lay nuyu di nuy waa Bawol yëpp ak waa Réfane fa lañ juddoo aussi ñëw Dakar fii waa Medina dalal ñu ñu yaroo entour ñaacoke Robes Fass Gueule-Tapée bi kon ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu waa zone bi ñu ne muy Ouest Foire aussi maam fi sees aussi di nuyu waa Kër Ndiaye suma koñ waa Rufisque ñëpp di nuyu aussi ñu mbokki lebu yi séeréer si bàyyiwuñu kenn comme ni ma koy waxee képp ku naan kàmmee futum na ñu ngi lay nuyu di lay wax ne kombaa bi seen kombaa la maa ngi suñu mbokki joolaa yi soose bàyyi nu kee xam nga moo du ñu ngi nuyu ñëpp daal di nuyu tonton moo du xule aussi voilà waaw sant yàlla rek xam nga loo gis lu ne cant la quoi ak la mu tombeel waaw lii nii la ko yàlla mbooge nii la amee mbiru suñu borom la deme na ni dañ koy sant yàlla tafaatin estaf la yor di am ñu muy déglu du moom kenn mooy jël ay décision boppam quoi ikri la ñu nekk mbooloo lañ tey ñoom lii la ñu décidé point de presse loolu la ñu def tey bu ñu doon open presse la guddi guddi damay jóg topp seen ginnaaw def loolu kon lii la yàlla dogal tey nañ ko nangoo ne xam ne lii la yàlla dogal open euh, point de presse lañ def voilà. staff euh, fii Sénégal la fii loo bëgg a xam balaa ngoon a jot dañ koy xam boo ŋaaŋee ci wax balaa ngaa daaneel xam nañu fa nga jëm fii Sénégal la quoi tafaatin du ànd ak kuy tiit wala kuy ragal ñoom xam nañu ma dama leen koy wax ñoom seen bopp ñoom ñii. képp képp voilà képp ku ma ciy waxal ñoom xam nañ ma bu baax ñi may waxal téléphone boog wala ñuy changé audio dama ne la man ci làmb làmb bu ma nit jéem moytuloo dara bu ma doom aadama jéem ne lii la wala lee la dèjà comme ni ko Abakan waxe bu ñu amut expérience ci làmb same bu ñu yóbboo ñu dem refan yàllaa ngi taw nii suuf sa yaatu ne ñu dem béy noppal nit ñi quoi.

combat bu mag la combat bu rëy la mais nag mënul rëy a rëy ba dépassé suma combat contre Amat Sène wala contre Bombardier lam la nag c'est le champion bu mag a mag ma nangul ko ko te ñaan yàlla yàlla may ñu ndam si kawam mais mënul weesu làmb ak lu la waaye mun di wax combat la combat bu ma respecté bu ma jox cer combat bu ma bëgg te ñii ma àndat di liggéeyal xam nañu lool kii kii chaque quatre heures du matin la ma yee Abidjan booy yi may àndat moyen de soixante dix kilos lañ ay combattant ñuy def king box chaque quatre heures du matin yeewu dem dawi lundi ba vendredi dama liggéey ci combat bi dama ci liggéey lu bëree bëree bëree bëri sax de David.

indi nga indi nga fii teraanga encore mais man li ma ci gën a neex mooy tey dama génne suma xaalis ñëw jënd participer ci entreprise bi parce que defal nga ma defalati ma c'est normal tey ma ne la wuli jaay ma voilà kon mu ngi noonu quoi contribuer way ah, Dembélé maa ngi lay nuyu hmm, laaj bi lan laati sax comme ça ah ok ok waay waay maa ngi dégg muy tudd ñoom Sàllo Mbay Juuf ñoo ñu semaine bi yëpp ñu ngi woon suma entraînement ak ñoom euh, Ili Soukay ñëw di jàpp ci xam nga comme ay techniciens lañu te yàgg na ma leen a déglu yàgg nañu ma entraîné yàgg nañu ma wax lu baax defal lii ma def lii am ci résultat ma koy rafetlu comme Bawol léegi am na lépp la res mooy xale yi nañ leen gën di déglu rek bu ñu leen di déglu yaakaar naa ay ndam rek lañ ciy jëlee quoi te man Tapha su may grand lañ dama leen doon supporter. yàlla dogal ñoom ñu arrêté seen carrière ñëw di assister su may entraînement bokk su may staff di ma digal may def yàlla di ma may ndam kon maa ngi leen di remercier ci côté boobu quoi vraiment. donc beneen question bi moom mooy que Balla Gaye xaw na yàpp mbaam Bawol daan fa mu daan maam Mbow mu daan Mbaye Diouf Bawol pare na won Balla Gaye jeex na. non boo boo boo ko jàppee noonu rek da ngay juum quoi.

non xam nga làmb moom boo ci ne da ngay indi lépp teg rek quoi da indi bëree indi xeex mais waa ji comme que ne nañu bëre la mu ne dama koy fekk si bëre bi comme ñaare ku mu xeexal gars yi dañu koy indi ay problème léegi damay dem jaxasoo moom bëre ak moom quoi incha allah oui. mais la waaw mooy li ma lay wax rek Tapha Tine moom xam nga. façon slogan bu ne indi na ko yaakaar naa loolu. loolu loolu loolu loolu ay yëfam la quoi. bon comme niñ ñu koy waxee rek staff laa am. làmb dafa am lu mu laaj. tey ci ring bi waa ji mënul xam ci première seconde yi man li ma indi même moom mënul xam lan laa indi man mënu maa xam lu mu indi ko il faut ñu laalante something ku ne xam lan la quoi. te lambit noonu lay deme mais li may li may indi. Boucar du la ko wax sama yëfi bopp la quoi. Ah. yee. doo andi Garton mais doo andi Sakane. yooyu yëpp su may su may slogan la damay indi Garton bee nappaaje xam nga. Garton bee takk ci rip. ak beneen bi may indi génne woon Côte d'Ivoire nan la moom laa wax bu yàggul ci presse bi man gëmuma ay affaire de favori ak yu kenn xamul parce que tout le gars yi da ngeen di gis favori day am outsider bi ñëw def différence tout le temps comprendre lamb la làmb laay def yéen presse bi bu leen neexee ku leen neex mën ngeen ko jox favori mais man du ma def sama favori yi voilà mu ngi noonu quoi sport laay def lamb la daana ma ñor dem daan suma adversaire xam nga dem feete sama victoire ak su may su fan si quoi. Eh, ki ñeneen. waaw. waaw teel a duggi marché teel a saal a pare rek looloo fi sës. parce que parce que booy xool ak air bi teel a duggi marché teel a taal. teel pare lii nii la deme voilà muy noonu quoi. ndax ci nawet la mhm, mhm. waa ji waa waa ji waa ji na xam ne ñun xaaruñu ko ci dara. kay waxay ay waxam gaaw ak yeex moom la engagé man tafaatin xaaruma ko ci dara man li ma liggéey laay ñëw appliqué dama bëgg dama bëgg bu ñu dalante étincelle yi mel nit mbojum kaane voilà loolu laay xaar ci moom incha allah waaw. lii lu ñu indiwaat la rek ñun ku ñu xam-xam ne Medina lañ dégg dañ doon seetaan lam bu pare jant bi doo wasoo Iba Mar voilà muy noonu quoi dañuy doon seetaan lamb ñuy jóg julli timis kon mën naa ne lu ñu indiwaat la rek quoi règlement la boo xam ne ci état bi la jógee ñun ñëpp nañ ko boole respecté loolu la quoi amul leneen. mais caanaar maa ngi lay nuyu di nuyu waa Réfane yëpp ak bawal yëpp di wax ne xam nga loolu sant yàlla la quoi wax dëgg yàlla ñu fi noo xam ne nii wala ñu mel fi loo xam ne nii nit ñi dañuy daw suñu ginnaaw lépp yàlla suñu boroom la bëri ñu ama seen yàlla may ñu ndam ñu dem def karawaan c'est normal fa la ñu dekk bawal bien vrai que dajaluñu quartier yëpp yow yaa nga fa woon mënuñu dugg ci kër yëpp mais tam xam message bi jàll na ci sa à travers des Réfane TV kon loolu sant yàlla la quoi ñu ngi yëpp te bii bii bii na ci ñëpp ñaan bawal gépp jàpp ci séeréer yëpp jàpp ci képp kuy bëgg Tapha Tine di ko ñaanal te yàlla tax jàpp ci ndam am ñu feetewaat ko comme ni ñu ko defee woon contre Amat Sen voilà waa mag ñooñu ñu ci bëri ay ancien gloire lañ xam nga dañuy sentir ne xale yu bawal yi mag nañu léegi ci làmb rek loolu la quoi dañ ci gis seen bopp peut lool loolu la quoi ñu ngi leen di ndokkeel aussi di del mosawu ñoom ñëpp quoi. benn kii CNG insisté ci seen règlement bi. yow na nga xam ne ngay teel a ñëw ñu laaj bala ñu teel a ñëw ñu respecté bismillah. ok. waaw bépp mbër buy bari loolu la roi comme lu bees la fi nekk muy empereur xam nga bu yàlla defee mu gàññe ko damay dem reyanti yoot roi bi rek boo ñëw esat galoo galoo yëpp ceinture yi bari loolu la amul leneen ah way maa lay waaw man maintenant laa dëkk fu la xam mën naa ne même bu ma fa gémboowu itam sama ful yëpp fa la ñuy déparé quoi wóor na président fa la ñuy reyee nag yi ci réussite bi añ yi fa la koy togee kaar yi fa la ñuy déparé ñëw estat voilà bu ñu daanee it fa la ñuy ñëw waaw lépp mën a nekk nag waaw maintenant moom kër gu ma fa dugg na dama bëgg a ngembu rek wala ci mbed meeg fépp sax problème amu ci quoi oui.

damay dégg ñu naan Balla Gaye na këram kan moo tëjut këram ñib si ba pare di tëddaat ci matlaa bu ndaw xam nga séance d'entraînement yi continuer kii troisième fois mu ngi ñëw mu ngi ñëw Sénégal dem la yéeg si combat bee ko fi indi bi may ñëw face à bi maa moom ñoo ànd face à boobu gars yi coow naan lii wala lii moom mii moo ko préparé sur boobu lu tafaatin def ak lu mu mel moom moo ko préparé kii David ñuy toog dama ci côté sport man dama ci nekk ci ay loxo yu wér muy waa Serena fitness ñii may sant madame Kébé Tité ngi nii taxaw Mohamed ak yi ñoom ñoo ma yore fii musculation salle bi heure bu ma neex lañ ma koy ubbil kii waxi noppi Abidjan bu ma fa demee comme ku nekk Sénégal sama dara du yi samay moyen lépp lañ may defal quoi kon Bokar mën naa ne Tapha amul dara lu muy xalaat wala lu muy sikki sàkk ci làmb quoi franchement. sa adversaire da mu ñëw comme ni actuellement moom mu ngi def point de presse wala open press. maa ngi xaar mu joxe fa ay minutes incha allah. Ah. non de du question de favori Balla Gaye wala ñu favori Tapha lu ñu ko favori mantam am nañu moo favori supporter wala ngay waxte booy waxte yàlla taxul xam nga am na ñoo xam ne dañuy waxte yàlla taxul mais ñiy wax réalité bi xam nga ñoo ñu kenn waxu leen dara mais dama doon waxte yàlla tax rek xam nga wax li ma xam wax li ma gëm loolu laa doon wax loolu loolu moo nekk ci man problème mu yar beeg comportement beeg man loolu moo nekk ci man amul doomu aadama mu mun a sensé surtout loolu la quoi ah Tapha mooy yow sa adversaire daje woon ngeen arène nationale seen première pièce su fees ngeen dajewaat seen deuxième pièce su fees à la deuxième pièce pour jumale nan nga gisee sa adversaire Balla Gaye de loo gisee. champion bu mag comme li may wax bu mën a bëre bu mën a xeex. waaw comme yéen yéen loolu moom seen seen kii la man loolu du ko wax man man daal li ma la mën a xamal mooy champion la daan na fi ay champion man moom yooyu seeni mbir la état bu taxaw bu taxawul man lan moo ma ñor suur boobu naa ñëw def suma différence ñibbi def na ma doon def voilà lépp mun a am ponkol mu muy peese ay cent et quelques kilos loxo yi dem gauche à droite lépp mun a am mais man comme comme la mooy wax damay dem mbappat ak moom damay dem bëri jeeg moom incha allah. Mhm. règlement bi waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu kot su mbay ndewaan mi doo